ñi am jëkkër di balaani loolu du yoon yàlla mooy joxe doom am na ñu amul doom di ko wëri kon bu la yàlla joxee nga toll ci ndaw war a jur jural rek bakkan yàllaa ko yor ku ci dugg daal yal na la ci yàlla génne waaye daal palaani baaxul bàyyi leen palaani feebar la indi. man de moom planning wax dëgg fa yàlla aayalu ko ndax man mii dama ko doon def bi ma waxee sama borom kër dafa d'accord ci man dama demal nga defi planning moo gën a wóor dina sori sa dina la aar tamit aar say njaboot nga mën a yar say njaboot ci ni nga ko bëggee ndaxte planning dafa nekk lu baax loo xamante ne ni nga mën a aar say njaboot mën a toppatoo sa jëkkër tamit aussi loolu tamit lu am solo la ci. boo demee Dominique fii tasee xale yi ku ne gàddu saagam dugg ci biir hôpital bi di wut di wut di wut pelil ñàkk kilifa ak seen ndey duñ leen suwee duñ leen toppatoo. ndax xale bu jigéen dafa daan yem kër ndeyam dem école wàcc bu ñëwee dee nga liggéey liggéey ndeyam wante xale jigéen léegi xaalis moo leen ëppal ndax bëgg nañu gere faas bëgg nañu bëgg nañu sol yëre rafet te amuñu ko moo tax ñuy jaay seen bopp. baaxul te boo ëmbee da ngay sonn bàyyi leen palaani palaani baaxul gone yu jigéen yi ndax loolu araam na ba pare wëlbatiku def neexut yàlla loolu araam na bàyyi leen seen bopp ak yàlla yàlla man lépp. palaani bu jëkkoon ba si sunu temps mag ñi ñun daaw ñun palaani boobu tax da ngay jur ba sañ sañ jur ba jur jeex rek. mu jeex am na ñoo xam dañ ciy am problème ndax boo juree di jur di jur di jur ba nga xam ne yow mi leer na ne yow mi soo sa bassin wàcc na mën nga mën mën ngaa jur maa day taal loru loolu yëpp amoon na so suñu temps gouvernement bi ñoo fi indi lii yëpp ñoo tax xale yu ñi yàqu xale bu jigéen boo gis nga yaakaar jànqal fekk xam na li muy xam bu yàgg kilifa yi ñoo ko def wuñoom état bi na nañu dimbale ci xale yi te arrêté seen kàppu yi ñuy jox xale yi pelil ñoo ko fi indi mag ñi dañoo juró juró jur ba caatlu te xamuñu xamuñu xamuñu pelil c'est c'est sa famille la ndax xale bu ndaw bu ñëwee yow xam nga ne xel kii mineur la amul jëkkër amul dara ñëw nii la damay damay dama damaa bëgg léegi def plan yi danga naan danga naan ko kaar dama woo say parents bu nu wooyee seen parent xam nga yow koo wax ni dama woo sa parents sa parents bu amee ful la du ñëw kon yow waroo ko defar plan yi mais ay xale yu ndaw def plan yi ah di def lu leen neex dam di dem dem di dem di wuti wuti seen appartement ah di teg indi seen greffage nga xam ay 150 la la lay jar. sa parent du ko gis loolu kon si parent yi la parent yi la sage-femme yi la ñi am jëkkër ñëpp di ñoom ñoo ko fi indi saa femme yi ñoo jàngal xale yi pilule mag ñi dañoo jura jura jur ba caat te xamuñu pilule waaw dañoo jur ba caat xamuñu pilule bu njëkk ba sooy jël sooy sooy jël pilule da ngay ànd ak mu dem ba ca docteur ba mu nga signé ne dangaa bëgg sa jëkk sa jabar jël pilule dégg nga wante léegi ku jóg boo demee dispensaire duñ la xool sax duñu xool sa tension ñu xool sa jabe dañ lay bind jël pëli rek jox la ñoom ñëw ko fi indi. xale jigéen ñi amagul jëkkër tamit di plané loolu man ma koo contre ndaxte boo amagul jëkkër war ngaa mën a téye sa bopp ba am jëkkër doo ko mën a def planique mais def planning tamit amagoo jëkkër tamit loolu tamit seen parents yi ñoo leen ci bàyyi xay na mais loolu man gisuma ko loo xamante ne lu baax la. gone gu jigéen na toog rek xaar yàlla ndax yàllaay joxe. te yàlla mën na leen may jëkkër ju baax kon nañ bàyyi palaan gone ko tuuti gu juddoogul jot muy palaan am na ñoo xam ñi ngi palaan yi du question bañ jaboot dafa fekk boo demee ba am nga yenn njaboot yoo xam ne yow xëy na amoo doole joo xam mën nga dundal sa njaboot sa njaboot di taxawaaloo yooyu ñu bare loolu moom moo tax ñuy palaan yi am na xam tam dañoo am na xam tam dañoo wérul ñoo xam ne comme tey yow boo juree benn ñaar ñun la ah yow sa yow mi amoo amoo kàttanu jur wala nangam nangam del del sa sa njur del ko soriante demal nga plané am ñoo xam loolu moo tax ñuy plané mais am ñoo xam dañuy plané rek moo leen neex bëgg ñu jaboot gu bare bëgg ñu daal di taxawaalu toiletu toog du xale xale xale du leen taqal xale xale du leen lëjal am ñu bare loolu moo tax ñuy plané. ah xanaa su ñu ñu suwee na meer yi xool saagu xale yi saagu xale yi pelil yaa ngi ci saagu xale yi jàngi école pelil yaa ngi ci waaw nañu suwee seen doom yi. bu njëkk ba kilifa da ngay xool sa doom wan bàyyi sa doom muy gàddu saagam rek dem école ñu bare bu ñu dem école doomanik la ñuy jaar wut seen i péril seen biir saak ñoo ko ñoo ko ci def na di leen digal daal ne leen daal ñu téye seen bopp sàmm seen bopp ba si biir ñu mën a am seen jëkkër di waxtaan ak seen jëkkër ba seen jëkkër ànd ñoom bu ñu ko bëggee ñu def ko bu ñu ko bëggul tamit ñu suivre seeni i conseil bu fekkee man saa wàllu bopp la man lu may lu may joxe mooy ko xam dara jotu ko yaa ngi lekk ba suur naan ba màndi xale bu jigéen bu fekkee amagul jëkkër na bàyyi plané bu fekkee da ngaa am jëkkër tamit te dara jotu la te dara jotu la xam nga ni xel yow mi man su ma juree sama jëkkër mën mën na maa gàddu du ma plané